bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi déglu ñoo ngi yëkk suñu kàddu muy kàddu yéen ñu ak ziyaar sëñ Abdou Lahad ñu ngi lay nuyu baax a baax di rafetlu li nga laytaay jataay bi di teg sew say loxo sunu nuyoo mu àgg ci mboolem ñi nga xam ne nii ñoom lañ seqal liggéey bi ni nga ko waxee nag tey ñu war waxtaan ci doomi am réew yan ak ak yan def ak yan warteef moo ko war ci diggam ak am réewam muy baat yoo xam ne nag baatub cité wala cité boo koy xool ci arab mooy tolloog almadina almadina ci araab mooy ab dëkk dëkk bu ñu tuubaa ab dëkk la Madina la wala Mbàkke wala Njaareem wala Mbuur wala yu mel noonu muy baat boo xam ne nii grec yi yàgg yi ñu xeetu grec yàgg te njëkk a xalaat ci mbirum nosiinu état ak nuñ koy taxawale ñoom ñoo njëkk a jëfandikoo baat boobu ñoom dañoo gisoon ne li ñu tuddee réew ñun te mooy état ngir ñu mën koo saytu ni ñu ko war a mën a saytoo dëgg mënta ñàkk ñu wutal ko ab yamukaay ci yaatuwaay bi wutal ko ab yamukaay itam ci nit ña fay dëkk ñoom dañoo gisoon ne am na yaatuwaay bu réew di yaatu bari waaye nit ñi fay dëkk bari bi ñuy bari kenn dootu ko mën a saytu moo taxoon ñu nekkoon kon nag il faut que ñu wutal ko lim ci yaatuwaay ak lu koy lim ci ay nit ña xam ne ñoo fay dëkk su ba gis ne li dëkk mooy madine wala boog mooy dëkk ñu ne kon ab dëkk daal war yenn na mu nekk am lu muy moo taxoon bu doon ci ñoom dañu gis ne Touba dinañ état la dëkk mag bu nekk ñu tudd ko état ñoom ko déggee li ko daan tudde état cité wala cité état loolu la dépend ba tax seen dëkk ñu Athènes Athènes ci ay jamono état boppam la woon ak yeneen dëkk yoo xam ne noonu ci biir réewum Grèce nekkoon ay dëkk ñu di ko jox kon loolu mooy cosaanu baatu cité wala cité bi ñu demee nag ba jamono soppiku yeneen gis nañu bees dugg ci état yu bees yu moderne yi taxaw yaatu lool jël mbooloo mu baree bari jël yaatuwaay bu baree bari lépp ñu bolli ko saytu day mel ne déggin na soppiku na waaye nag am na baat yoo xam ne nii dafa jóge ci ñooñee ñu yàgg ñooñee ba noppi di law ba léegi ci suñu biir état yi ñu yor état yi nga xam ne état ñu xam nii lu mel ne baat citoyen ci la bokk citoyenneté ci la bokk ak civisme yooyu ay baat la yoo xam ne nii mën nga koo xare ci baatu cité bu ko defee muy wéy di agsi ba léegi muy baat yoo xam ne jege nañ waaye am nañ tuuti tuuti ci ay wuute bu ñu nee citoyen mooy képp koo xam ne ni rek doonu réew mi yaa ngi dëkk ci réew mi di doonu réew citoyen nag nit ki mën na ko am mën na koo nekk ci façon yu baree bari waaye bi ci solo mooy nga juddoo ca réew ma réew yu baree bari boo fa juddoo rek dangay daal di nekk citoyen da ngay nekk doomu réew ma ci li koy wax ci sax day daal leer nañ dangay ngay nekk doomu réew ma ca foofee bu dee citoyen nit nag moom ay àq la ak i yelleef ak i warteef yoo xam ne nii sàtt réew mi nag da koy kar da koy tënk koo xam ne doomu réew mi nga àq yi ak yelleef yi am nga ko waaye tam warteef yi dañ koy gàll ci saw loos lu mel ne ñu ne la boo dëkkee di doomu réew mi am nga sañ-sañ àq ak yelleef ci bu wootee jotee wala boog am nga warteef ci bu wootee jotee nga dem sànni saw kàrt loolu warteef la ci citoyen bu nekk ci citoyen nit ci lay dugg am nga àq tam ci bu la neexee bëgg ngaa falu bu fekkee charte yi dajana ci yow bu la neex nga def sa nekk candidat ca la ñuy laaj nga laaj boo loolu sa àq la yow en tant que citoyen boo xam ne ngaa dëkk ci réew kon citoyen bi moom buñ ko déggee dañ ñëw ci biir ay àq la ak yelleef ak warteef yoo xam ne ni dañ koy xam ñu ne lii képp ku dëkk ci réew mi di doomi réew mi am nga ko mu des nag baatut civisme wala boog bëgg sam réew wala boog cofeel gi am sa digg ak sam réew wala boog cër bi ngay jox réew mi moom muy tekki mooy ni ngay wormaale ak weg gi ngay weg lépp loo xam ne ni mooy jëmmal état bi ak li ci aju wet gi koy wet wet gi ngay wet sàtt réew mi te mooy constitution bi loolu ci biir civisme lay dugg am na ñuy wax bàkk réew mi devise réew mi nga war koo jox cër boobu ba tey du ci dugg ci biir lu mel ne hymne bu buñ koy way buñ koy yëkkati taxaw ngay taxaw doo yëngutu doo ànd ak ña koy wax loolu day dugg ci baatum civisme boobu ñuy waxtaanee cër bi ngay jox drapeau réew mi nga xam ne doo ko salfaañe doo ko lakk doo ko doo ko tilimal doo ko def lenn du koy xajamal loolu ba tey ci la bokk ak lu mel ne nga respecté souveraineté état bi maanaam nga xam ne état bi moo féete kaw ñëpp nga jox ko ca bi nga ko jox waaye itam warmaal alal ji nga xam ne réew moo ko moom te ñëpp bokk ko ak alal ji nga xam ne sa moroomi dëkkandoo ñoo ko moom ko warmaal ko loolu lépp dafay dugg ci baatu civisme bu ñu ñëwee ci gën leer kon ñett ngi noon yoo xam ne ni dafay dañ koy xaare ca baat bu muy citoyen koy dégg fu mel noonu ñett yooyu nag bu dajee ci kenn nit moom mooy la gën mooy kenn nit koo xam ne nii citoyen la doomi réew mi la ak ak yelleef yu doomi réew mi am am na ko wartee ci doomi réew mi gàlloo gàlloo na ko waaye itam bëgg ak cofeel ak wég ak yëg ak yëg ak weg gi mu war a weg réew mi jox na ko loolu bu dajee ci nit mooy kiñ bëgg ci doomi réew mi nga xam ne nii moo tax ñuy wax waaye nag léeg-léeg sabab day ñëw sabab day ñëw benn sabab yi ñu dem ba nit ñàkk benn ci yooyu mën naa dese yennee ba noppi ñàkk benn ci yooyu mën ngaa gis koo xam ne doomi réew mi lay doon waaye ñu rëkki ci moom génn ci moom nangu ci moom àq ak yelleef yi nga xam ne nii doomi réew mi am nañ ko comme moom ndax def na njuumte loo xam ne nii seq na kook yoon yoon ne ko bokk na ci lañ lay sanctionné mbugal mi ñu teg sa kaw mooy àq ak yelleef yi nga amoon dootoo ko am misaal tey mën ngaa gis koo xam ne ni doomi réew mi la amut sañ-sañu wate amut sañ-sañu falu mënut a posi candidat mënut nekk bu ñuy wat wattam dootu bokk ndax mën naa am lu mu def ñu mbugale ko lu mel noonu kon kooka doomi réew mi la waaye citoyenneté moom dañ koo rocc ci moom man ngaa gis it koo xam ne nii doomi réew mi lay doon àq ak yelleef ak warte fii jox doomi réew mi yëpp jox nañ ko ko waaye boo xoolee ba ci biir amul lenn lenn ci lii niru xeetu patriotisme maanaam leen xel lenn liy tegtale mu bëgg na réew mi wala fonk na réew mi wala jox na ci réew mi doo gis ci moom kooku ba tey day am kooku nga gis léeg-léeg mu jalgate sàttum réew ak ko mën ci doon ak noo ko mën di jalgatee rek jàppal ne sa baatu suufisum yaa ngi ciy génn réew mi ni lañ ko tëral tënk ko ci ne nii ak nii ak nii la war a doxe boo ko jalgatee jàppal ne kon sa civisme manqué la ku itam ñaari du du faale wala boog du yëg sax ne réew mi daal moo yilif ñëpp moom day jàpp ne yéew bu ne réew mi yilif ñëpp moom mën na ne moom daa bokkut ñi nga xam ne réew mi moo ko gis muy jalgate ak alal réew mi ñu dénk ko alal réew mi mu koo saytu war koo jaar ci yoon mu këppoo ko wala mu def ci mel noonu wala sax nga gis ko naqar am mooy muy wër yàq alal yi ñi nga xam nañ koo liggéey ba dajale ko mu yàq seen alal yëpp dafay tegtal ñëw sa patriotisme wala boog sa civisme des na kon ñett yooyu nga gis noonu ñu dajee mooy li gën waaye nag léeg-léegi kenn ñàkk ci benn wala ñàkk ci ñaar dese ca ya ci des moo tax bu ñu nee civisme dëgg-dëgg te mooy patriotisme wala boog bëgg ngay bëgg sam réew mi ngi tàmbale ci warmaal sàtt réew mi constitution réew mi nga xam ne nii moo tënk réew mi nga respecté ko lépp looy def itam nga sàmmonteeg la ca lañ ca bind yaxal ko ca boo ko gisee baax na boo ko gis itam nga sàmmonteeg yëg-yëg wala boog esprit bi nga xam ne ni mooy animé constitution bi mooy lépp looy def rek nga fexe ba dëppale ko ballu la ko ci biir constitution bi su ko defee nag loolu su amee nag nga door waxtaan nag ni ñuy respecté alalu réew mi ni ñuy respecté alalu ñi ci des ak ak ni ñu koy sàmmi ak yu mel noonu muy ñëw ci biir kon baat yi noonu lay demee bu ko déggee noonu dana teel a suñu bopp bu ñu delloo ci gis na dañuy gis ne dafa am doomu aadama dafa am yoo xam suñu borom dafa ko mooñaale ay yëg-yëg ak mbir yoo xam ne nit buy judd daf koy indaale lu mel ne yëg-yëgu xiif yëg-yëgu lekk yëg-yëgu naan yëg-yëgu ñenn yi nit daf koy judduwaale suñu borom daf ñu ko mooñaale bokk na ci li ñuy yàlla mooñaale nag ñu koy judduwaale nag yëg-yëg bi ñuy am ci suñu digg barab ba nga xam fa lañ gënee àdduna wala réew mi nga xam ne nii fa lañ ñuy askanoo moo tax mu indi wax ju siiw ñëw ñu naan bëgg sam réew ci gëm yàlla la bokk du mën naa bañ a nekk xadis wala ba mën a xadis bu wér wér naa wérul loolu am ñu ko yittewoo waaye daal wax la joo xam donte du xadis bu wér waaye xel nangu na ko maanaam ni ñuy dundee itam mën na koo layal mooy ne bëgg sam réew bokk na ci ak gëm yàlla wala bokk na ci baax moo tax yëg-yëg boobu nga ñu ko mooñaale nag ñaari néewaa nit ku semple rek koo xam ne dara laalu ko te amu ko maanaam nit bu fekkente ne jaarale wuñ ci yenn barab yi rek yëg-yëg boobu day dund ci moom kon képp koo gis rek mu dem ba civisme boobu mu ñàkk wala patriotisme boobu mu waroon am mu ñàkk ko mooy ñaare mooy ñi nga xam ne nii dañ leen a jaarale ci barab yoo xam ne nii dañoo raxas seenum xel ba mu set raxas seen yuur ba mu set def ci yeneen xalaat yi bees yoo xam ne nii mooy tax duñu fonk seenum réew duñu bëgg seenum réew gënal réerum jàmbur mooy leen di gënal séewum réew lu ñu am yóbbu feneen lu ñu xam yóbbu feneen mel ne daanaka na woon ci réew ma ñu askan loolu koo gis mu ne ci moom rek xamal am na fu jaar ak moom ci wàllu jëf ak pexe yoo xam ne nii xam nañ ni ñu koy defee te mooy fexe ba raxas sam xel dugal ci yeneen xalaat yoo xam ne noonu lay demee waaye bu dee nit ku simple rek koo xam ne nii moom dañ koo bàyyee na ko suñu borom bindee bëgg si fa nga bëgg sam réew moom suñu borom daf ñu ko mooñaale te buñ delloo ci kilifa yu mag yi ñuy tegtaloo dañuy gis ni ñu bëggee woon seen barab yooyu boo ñëwee ci ku mel ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku nekk xam na ne màkk fa la gën àdduna fa lañ koy askaneel tam waaye suuf su màkk suuf su mu bëggoon la ba daan ko wax léeg-léeg sax daan jàkkaarloog moom naa ko yow de yaa ngi nii suuf si ma gën a bëgg ci àdduna mooy makka su fekkoonte ne samay noon génnewuñu ma fi du ma fi génn mukk kon yëg-yëg boobu moom mi ngi woon ci moom wala boog ni mu ko waxee ci ay waxinam bu ñëwee ci lu ñu gën a jege muy Serigne Touba radiyallahu anhu ku fonkoon fi mu ganee at fi mu feeñe fonkoon na ko lool Touba gi nga xam bu doon réew dañaan mooy aw réewam fonkoon na ko lool daan ci wane cofeel gu mat sëkk daan na bind di wax ne Mbàkke Bawol day man bëgg naa ko lool ndax falaa feeñ gi mu fi feeñee tax na mu fonk Mbàkke Bawol bëgg ko lool boo ñëwee ci Tuubaa gi nga xam ne bu doon réew dañ naan mooy am réewam moom ci bindam yu baree ba dangay gis muy bind di wax yëg-yëg boo am ci Tuubaa bi ne ci am réew te su demee nekkee ci nit nag tey dund ni mu war a dund dëgg dëgg nag leneen lu dul moom rek boo leen lëkkalee loolu day yomb lool day woyof lool ci nit ki joxe ko te man a sàmm bëgg-bëggum réewum kon muy ñetti baata yu jege lool baatu civisme baatu euh, citoyen baatu citoyenneté xaw nañu ak doonte tuuti am nañ tuuti ay ay wuute ci biir kon wax nañu citoyenneté nag moom ay mooy àq la ci moom citoyenneté am ak xam ak yelleefam ñu nangu ko ci moom te mën naa am ki ko nangu ci moom moom bu doon wàllu bëgg réew mi donc ki ko nangoo ci moom moo ko gën a bëgg fuuf réew mi mu ko moom moo ko gën a bëgg fuuf ci fànn yu bare bari loolu dañ koy seetlu ci ñi ay prisonniers d'opinion maanaam mi nga xam ne ne tëj ngir gis-gis bu ñu am ci seenum réew fonkoon ko lool ñu tëj nañu leen nangu ci ñoom seenu seen citoyenneté xañ leen ko te mën naa am ki leen tëj nangu ko ci ñoom ñoom niñ bëggee seen réew fonke ko noonu moom sax genn wàll ko sax newut ci moom kon xëy na yeneen lay jëfandikoo ñooñu nag ñu bari lañ koo dégg ñu tëj ko ci xalaat xalaat yu am ci yëm réewam wax xalaatam ci réewam ñu tëj ko ci jàppal ne mën nga koo dugal ci ñooñu waaye bu ñu doon xool ki ci gën a siiw wala boog bokk na ci ki gën a siiw ku mel ne Nelson Mandela Nelson Mandela ñaar fukki at ak juróom-ñaar lañ ko tëj kaso ànd ak travaux forcés maanaam mooy liggéey boo xam du ko sañ a bañ di ko toj looy xeer ak di ko liggéey liggéey yu méttee métti diirub ñaar fukki at ak lu tax ñu tëj ko weesu ne bëggoon na am réewam bëgg a goreel am réewam yëg-yëg boobu dong moo tax ñu tëj ko te biñ ko tëjee mu ne ci biir kaso bi daana bind di wax ne ñim séqal réew mi di leen wax ne nii ngeen bëggee dund man mii noonu laa bëggee dund kon ni ngeen bëggee dund man mii noonu laa bëggee dundee waaye nag damaa mënta jaay sama àq ñoñ ci am sañ-sañ bu ñu war am ci seen bopp ak seen liberté ak seen àq ak seen leef ñu war koo jot mënuma koo jaay di ko jëndee sama dund waaye ni ngeen bëgg dundee moom laa bëgg mu ne leen nag su fekkente ne nag àq ak yelleef jooju sama askan war a am sañ-sañ boobu ñu leen war a jox su fekkente ne laaj ne ma joxe sama bakkan mën naa koo joxe saa yu ko laaj naa ko joxe kon kooku foofu la ne képp koo xam ne nag bunduxataan nañ la ndax ne da nga am gis-gis boo am ci sam réew muy bëgg ko ak fonk koo fonk ba tax nga di ko feeñal mën nañ laa dugal ci biir ñi nga xam ne nii dañ leen a defal li ñuy wax délit d'opinion te mooy tëj leen ngir seen gis-gis ak seen xalaat loolu nag lu bari ci àddina bi la foo dem ci àddina bi da nga ko fay fekk kon yooyu mooy euh, liñ ci bëggoon leeral ci wàllu baat yooyu nga xam ne nii day lor lu baree bari kon citoyenneté nag bi nga xam moom citoyen bi nekk moom lañ soxlawoo ci moom ni déggin mi ci am léeg dafay wuute ci diggante réew ak wuute giit mën naa dellu ci seen mbatit seen culture seen aada ak mën naa dellu seen démb te mooy seen wala boog idéologie bi nga xam ne nii mooy saytu réew ma yooyu ni ñuy wuutee tam baatub citoyenneté ni ñu koy déggee ak acte yi ñu koy jox mën naa wuutee noonu ci misaal tey ñi ma tuddoon ci départ bi te mooy grec yi nga xam ne nii ñoom wàllu état bokk na ñi ko njëkk a xalaat njëkk koo nos ñoom seen réew dañoo waxoon ne droit citoyenneté ki ko fa am kese mooy góor ñi góor ñi dong ñoo am àq ci bokk ci doxalinu réew mi te du góor ñëpp sax waaye góor ñi nga xam duñu ay jaam te booba jamono yooyu jaam dafa amoon nga gis ne kon ñoom seen citoyen ki ñuy jox citoyen dëgg-dëgg góor lay doon te gor lay doon kon mën ngaa nekk dëkk ci réew mi citoyen ci réew mi boo dee jigéen amoo droit de citoyenneté doo ko am boo def jaam bokkoo ci kon yooyu mën naa wuute ci diggante réew ak moroom ja ci ni kem ni aada yi ak cosaan ni muy wuutee mën naa wuutee noonu waaye bu ñu xoolee ci ëpp ci nit ñi ci àdduna bi ku nekk am nga foo nekk doomi réew ku nekk ñun fi nekk am nga réew moo xam fa nga dëkk ñu la fay askanal donte am na benn benn yu néew nag yu nekk ci ay réew benn nationalité am na benn benn réew yu ko am waaye bëriwuñu loolu waaye lépp ci doomu aadama yi moom am na fu ñu leen tuddee seen doomi réew fu ñu nekk ay citoyen nekk fa doomi réew ci réew moom kon nag boo nekkee doomi réew ci réew ñu jox la sa àq sa yelleef yi nga am loolu daf lay jox ay avantages yu baree bari yoo xam daf la koy sàmmal te mooy ci biir nangul gi ñu lay nangul ne doomi réew mi nga ci lañuy sukkandiku ba lépp luy sa njariñ say intérêt ñu sàmmal la ko boole ko jox la yeneen àq ak yelleef yoo xam ne nii danañ ci ñëw ci kanam tuuti waaye itam noonu lay joxe àq yelleef nag ci la ñuy gàlle ci saw loos ay warteef ak obligation yoo xam ne nii dangaa war a wàccook moom warteef yooyu ak àq yooyu itam nag day wuutee ni ma ko waxoon léegi ci eh, jóge am réew ak moroom ja mën nañ cee wuute kon daal bu ñu nee citoyen mooy képp koo xam ne nii jëpp jëmm joo xam ne nii yaa ngi dëkk ci gox cim réew di jariñu ca la dëkk ña doomi réew ma njariñ ak ak xëy leen jox ñu jox la ko nga di ko jariñoom droits sociaux yi fa am droits politiques yi fa am yépp ñu bàyyi la nga di ko jariñoo mën nañu jàpp ne yow boobaa dañ naan doomi réew moomee moom lañ lay tuddee wala boog citoyen nga ca réew moomee ñuy waxtaanee am na benn xalaatkat bu mag bu bokk ci grec yi moom waxoon na ko nee na woon citoyen daal mooy képp koo xam ne nii man nga am nga te man nga muy ñaari baat yu solo man nga am nga mooy nga bokk ci ni réew mi doxe waaye itam am nga sañ-sañu bokk ci ni réew mi doxe bu ñuy wax nga wax bu ñuy proposé nga proposé bu ñuy bu ñuy bu ñuy discuter nga bokk ci ñuy discuter ñuy atte réew ma nga am ca kàddu la ñuy jokkalante ci biir réew ma nga am ca kàddu ak noo mën a defee ci doola ba dañu jàpp ne kon yow citoyen nga ca biir réew mooy loolu nag kon yaa ngi ko mën a amee ci nga am nationalité réew mi réew ma nekk dafa am kii lu maanaam sart maanaam lu ñu lay ak maanaam lu ñu lay bindal loo xam ne nii mooy wane ne yow mii doomi réew mi nga war ngaa mën a bénéficier wu ci avantage yi nga xam doomi réew mi dana ko ci yooyu itam nag nit mën na ko am façon yu baree bari danay wuute kem ni réew yu wuutee am na réew yoo xam ne nii boo fa juddoo rek nekk nga citoyen bu fekkee li ñuy wax droit au sol man maanaam suuf ma àq suuf si àq jim lay jox boo fa juddoo rek dañu lay daal di jàppee doomi réew mi léeg-léeg itam nga mën koo amee ci sa baay nekk doomi réew ma wala sa yaay nekk doomi réew ma mën na laa wàll nga nekk doomi réew ma mën na la koo may itam nga nekk takk ca waa réew ma wala nga sëyi ca waa réew ma bu fekkee da ngaa nekk ci réew am fa soxna soxna su mën na laa may ci yenn réew yi mën na laa may nga am àq ci nekk citoyen réew ma naka noonu tam safaan bi danay am wala sax nga jël fa nationalité jóge fa ñëw fa jox nationalité kem ni ko lu waaye di tërale waaye daal comme ci mën ni doon daal bala ñu laa mën a tuddee citoyen dëgg-dëgg mooy da ngay àq ak sañ-sañ ci bokk ci lay doxal réew ma jaare ko nag ci institution yi nga xam ne nii mooy ŋànk réew mi moo xam yu politique la moo xam yu yoonal la wàllu atte bi la moo xam yu constitutionnel la yi nga xam yu daal mooy tënk réew mi leneen nga dem ci réew nag fekk fa ñoo xam ne nii ci réew ma lañ dëkk man naa am sax fa suñ fa yéenetee jóge duñ fa jógee mu ko wala bokk fa ñuy sax lay tënk waa ma tam muy ndigal yi doxal réew ma tam ci la ñuy tënku di ca dox waaye nag duñ am benn sañ-sañ ci dugal seen kàddu ca nañuy dogale ak nañuy tërale yoon yooye kon ñoom yoon ñuy tëral dañ cay tënku waaye nag du ñu ci bokk ci ña nañuy tërale yoon wooye ñooñu la ñu te étranger ci am réew mooy nit doomi jàmbur yoo dañoo ne ci réew mën nañoo bànneexu ci yu baree bari àq ak yelleef ñu am waaye nag du ñu am sañ-sañu dugal seen kàddu wala seen xalaat ci ne réew may doxee ndax bokkuñ ci doomi réew ma kon ñoom amuñu sañ-sañ bokk ci doxalin politique ba wala nañ koy nañ koy orienté wala mel noonu yëg-yëg bi nit di am nag ci ne moom doomi réew mi cosaanu ci réew mi la mooy yëg-yëg bi koy may mu yëg ne lépp luy àq ak yelleef ak warteef yu doomi réew ma am jox nañ ko mooy tax mu gis ne moom nekkul ni rek daa dëkk ci sa réew mi nekk fa noonu rek waaye di ñu imposé ko système boo xam ne nii moom bokkul ci ña koy doxal bokkul ci ña koy dogal bokkul ci ña koy organiser boobaa loolu nit yëg-yëg bi muy am ndax man may nañ ma ni ma nekk doomi réew mi ndax may nañ ma ko man ma mën a dugale sama loxo ak samay xalaat ak samay kàddu ak samay gis-gis ma mën koo dugale noonu ci doxalin réew mi su fekkee da ngaa nekk doomu réew ci réew te yow nga yëg ne man mi kat maa ñëpp a bokk nekk doomi réew mi waaye mayuñ ma ma mën a dugal samay xalaat ak samay gis-gis ci réew mi boobaa yow gis-gis bi nga am sa bopp dana ci feeñ waaye itam ni ngay xoole réew mi daf cey feeñ ni ngay xoole neen ñi nga bokkal réew mi itam taxawaay boobu ñu ci yow daf lay feeñ moo tax boole gi ñu lay boole ci ni doxalee réew mi loolu mooy li may yëg yëgu nga yëg ne man mi kat ci réew mi ci laa bokk te it ab citoyen la wala boog doomi réew mi la comme ñëpp moo lay may nga am ñu yemale la nga xam ne dinaa léegi doomi réew mi ñëpp ñoo yem ci kanam état bi ñoo yem ci kanam loi ñoo yem ci kanam yoon ku nekk ci ñun àq ak yelleef yi nga am moom na sa moroom am ku nekk ci ñun warteef yi ñu gàlle sa loos moom lañ gàlle sa su moroom kon ñu ne askano gi askano suuf si boole gi ñu boole ci liy doxal réew mi yemale gi ñu lay yemale ak yeneen doomi réew mi loolu mooy tax nga yëg ne yow mii doomi réew mi nga wala boog citoyen nga ci réew mi nga boog nekk mu am nag ay charte ak ay yu koy dëgëral yoo xam ne nii foo xoolee gisoo ko jërut nga fee jéem a waxtaane citoyenneté mooy citoyenneté bu mu nekk wala boog doomi réew mi ngir mu ñu mën koo tuddee ak yelleef yu mën ko am dafa am ay charte yoo xam ne moo war a daje ñu door a waxtaane lu mel noonu bi ci njëkk mooy li ñuy wax état de état de droit mépp réew moo xam ne ni état de droit amu fa jërul ngay jéem waxtaan citoyenneté état de droit nag mooy bu ñu ko waxee moo état boo xam mat na lim doon sëkk mat na lim doon sëkk maanaam mooy moom féete na kaw ñëpp te yamale na ñëpp ci kanamam moo féete kaw ñëpp waaye tam ñëpp a yem ci kanamam doomi réew mépp ñoo yem ci kanamam loolu sart la ci ñu mën waxtaane citoyenneté réew mu ko amul wala boog fu mu nekkul réew mu nekkul boo fay waxtaani citoyenneté du du tegu ci nañ ko war a moo tax réew yi nga xam réew dictateur la dictature la ñuy dund ay ñoo koy atte wala boog nit ñoo xam seen xalaat dong lañ jàpp ne moo war a dox keneen wët a xalaat foofa fa màgg na mu war a màggee dëgg dëgg dëgg du ko fa màgg am na réew yoo boo fa demoon tey mbooloo mu baree bari ña nga ci réew ma te xañ nañ leen ñu mën a bokk ci li doxal réew mi ak ni ñu ko mën a tudde nag wala nga dem ci réew moo xam ne nii minorité bu ndaw lim bu tuur ci ay nit ñoom ñoo ŋànk réew mi lépp lu fay dox ñoo koy doxal alal réew mi lépp seen loxo la nekk ñu koy jëfandikoo nu mu leen neex ku leen neexul du ca bokk loola foo ko gisee xamal ne état droit néew foofu nag bu amul nag citoyenneté du fa mën a am moo tax su fekkente ni dañoo xañ lépp ci doomu réew mi ñu xañ leen ñu bokk ci ni ñuy doxal réew mi xañ leen ñu jot seen wàll ci alal réew mi yëpp ñëpp bokk ñu xañ leen ko ñu mënuñ caa jot loola buñ ko defee day am lu muy jur ci biir nit ñi la muy njëkk a jur ci biir nit ñi mooy ñañ naan doomi réew mi lañ dañuy dem ba gis ne comme kat réew mi ni la tëddee man tam kon warteef yi ñu gàll sama loos ak obligation yi ñu gàll sama loos man tam su ma neexee man naa ko bañ a respecté ndax comme réew mi joxuñ ma sama ak joxuñ sama yelleef kon man tam samay warteef mën naa bañ a tee wàccoog moom loolu dañ koy gis ci réew yu bare bari ñaare boo gisee réew gis ñuy génn def ay marche di dox ci mbedd mi di wane seen naqar loolu dana ko waral mooy gis nañ ne ñoom seen ak ak dañeen koo xañ ci réew mi léeg-léeg ñu feeñal ko ci ay grève grève yi ñuy def banque seen loxo bañatee liggéey léeg-léeg ñu feeñal ko ci wut ay ndiiraan ay fuul yoo xam dañuy génn topp mbedd mi dox lu ñu romb yàq ko ak ku ko mën di moom bu ñu ko rombee dañ ko yàq ndax am nañ yëg-yëg bu ñuy bëgg a feeñal foofee buñ ko buñ ca waxul nag mën naa dem ba dem ba àgg ci ñu wax isyaanul madani mooy désobéissance civile mooy ñu dema dem ba luwaay yeeg sàtt yi tënk réew mi kenn dóor ci nangu kenn dóor ci tënku bu ko def ku nekk def la la neex boobaa nag ci la réew ma faray jaare far faagaagalu kon yëg-yëg bi nit ñi am ne ñoom état bii leen yilif état bu mat lim doon la te mooy état de droit la mooy ci yoon lay tënku ku nekk lay sàq dana la ko sàmmal lay say lef dana la ko sàmmal lay say la ko gàll te ñëpp la yemale ci kanamam boobaa bu amee mën nañu waxtaan si waaye nag bu loola manqué moom nit ñi dootuñu gëm ne ñoom ay citoyen lañ wala boog dootuñu gëm ne seen citoyenneté ña ngi koy dund beneen tànk bi ci topp te mënta ñàkk te mooy li ñuy wax système démocratique maanaam doxalin wu démocratique mënta ñàkk cim réew li ñuy wax démocratie ak citoyenneté ñoom ñaar dañoo lënkaloo ndax démocratie mooy yiir mooy aas mooy aar principe bu citoyenneté démocratie nag bu ñu ko waxee moom itam ay déggin yu baree bari la am bari na nu ñu koy jëfandikoo tam ci xeet yu buti waaye li ñuy wuute wuute nag am na ponk yoo xam dëppoo nañ ci dëppoo nañ ci ne démocratie bu mu mënti doon li ñuy wax décentraliser la ñuy def mooy nguur gi wala boog doxalin réew mi ñëpp ci seen loxo da ciy dugg di maanaam maanaam dogal yi ñuy itam dañuy fexe ba ñëpp bokk ci dañ koy décentraliser mooy ñëpp ku nekk da nga gis sa bopp ci dox doxalin ak décision ak dogal yi nga xam ne nii moom la jël loolu moom démocratie bu mënti doon dana ko sàmmanteek moom. démocratie bu mënti doon it dana gëm ne doole ji muy yor wala boog légitimité bi muy am ku ko am ku nekk population moo la koy jox. kon nit ñi ñoo population bi ñoo féete kaw ku mën di doon kon ku fi yor dara ñu dénk la ko lay tax ñu mën koo yoonal mooy ñi an naanam doomi réew ma ànd ci ak yow loolu démocratie yëpp dëppoo nañ ci loolu mënta ñàkk démocratie yëpp dañ dem dañ dëppoo li ñuy wuute wut dañ dëppoo ci ne nit ñëpp ci kanam loi ñoo yam nit ñëpp dem àq ci wàllum politique yi ñu am ñoo koy yem kon duñ la xool ba xam yow jën diine nga gëm du waru caa feeñ yan aada cosaan nga yore waru caa feeñ ban doctrine wala ban idéologie ngay dund waru caa feeñ wala bokk sax ban xeet nga bokk wala ban làkk ngay làkk waru caa feeñ loolu nag bu amee cim réew si doxalin woo bu amee cim réew mën na na waxtaane citoyenneté ndax boobaa ñëpp dañuy gëm ne mën nañoo wuuti ci ay diine wuuti ci ay làkk wuuti ci ay aada cosaan waaye li ñu bokk muy réew mi ñoo ci bokk yam ñun ñëpp te ñun ñëpp ku nekk sa àq da nga gis sa bopp dana taxit nit ki ñu ci démocratie bu mu nekk dana may nit ki mu mën a am xam-xam bi mu war a am doxalin réew mi ba mën cee am yëg-yëg bu leer ak gisin bu leer ca na muy doxe mooy lépp loo xam ne nii yitteel na réew mi ci ñëpp bokk ko lañ ca war a xam ñu war koo tasaare ñu tasaare ko ñëpp xam ko bu ko defee ku nekk xam fa nga cay teg sa tànk loolu ñu wax transparence ci doxalinu am réew loolu bokk na ci li démocratie di woote te mooy ñëpp xam ne lii ak lii ak lii am na nii ak lii ak lii am na bu ko defee nag xam googu nit koy xam li nekk ci biir réew mi mooy tax mu mën a assumer ay responsabilités am ci na muy attewoo ca biir réew ma waaye itam na muy dugale loo xam ca biir réew ma waaye itam na muy laaje ña nga xam ñoom lañ dënk te bu leeral jotee ñu war a leeral ñu war leen am am sañ-sañ ñu laaj leen ñëw leeral ñu li ñu leen dénkoon ñoom naka lañ ca doxale loolu mënta ñàkk pour ñu mën a waxtaane citoyenneté ci am réew beneen tànk bi mënta ñàkk te mooy li ñuy wax mentalité citoyen yi maanaam xel seen xel fi mu toll maanaam am na niveau maanaam niveau booy yu bi muy laaj pour ñu mën laa wax ne yow sit am nga citoyen nit dëgg-dëgg dafa laaj nga am niveau sa maanaam sa capacité intellectuelle war naa àgg fenn wala boog sa mentalité war naa àgg fenn fi moo tax réew yu bare bari mentalité nit ñooñu dañ koy defar di ko jaare ci li ñuy wax socialisation te mooy génne nit ki ci mbaay ma dugal ko ci jaare ko ci mbatiitu réew mooy aada ak cosaan réew mi ñu xamal leen ko jaare ko tam ci doxalin réew mi di leer seen bopp ñu jaare ko nag ci maanaam institution sociale yi nga xam ne ni moo am ci réew mi lépp nag état bi di ko saytul boppam di ko nattal boppam loolu ñuy def ci nit ñi mooy mooy yar bi rek mooy njàng mi njàng mi bi éducation bi foofu lañ koy jaarale ba defar maanaam nit ñi seen wàllu yëg-yëgu xel ñu mën koo defar bañ am yëg-yëg bi nga xam ne nii bu leen joxee seen citoyenneté danañ ko mën a jëfandikoo su fekkente nag nit ki nag dañ koo jox ay droit ak yelleefam yi tax mu nekk citoyen ba noppi moom xelam ak ci ñor gu mën na man nu mën a jëfandikoo ak ak yelleef yooyu mooy warale léeg nga gis ñu jox ko nit mu koy jëfandikoo ci façon bu négatif boo xam ne ni waru ko woon a jëfe noonu ñu jox ci misaal ñu ne la tey sañ-sañ wax sa xalaat loolu àq la joo xam ne nii maanaam sart réew mu nekk da koy garanteel doomi réew mi ku nekk am nga sañ-sañu am xalaat wax ko su fekkente ne ñi seen seen mentalité àggul fenn fi da nga gis àq jooju dañ koy jëfandikoo ci façon bu baaxul mooy li dal réew yu baree bari ku la neex daggal saaga ku la neex xas ku la neex tuumaal ku la neex wax lu la neex bu ñu waxee nga ne am naa seen si wax sama xalaat loolu tegtal la ci ne yow jox nañu àq jeeg yellee ci waaye sa niw xel fi nga toll ci wàllu xel xalaat moo la mayul nga mën koo jëfandikoo ci yoon wa kon fexe ba defar xelum nit ñi ba mu tolloog li ñuy wax citoyen dëgg-dëgg dana tax mu dimbali ñu ci moo tax li ñuy wax socialisation boobu léegi su fekkee defar nañ ba matti nit ki moo tax nit ki dina xam mbooloo mi mu bokk moom mooy réew mi bokk ñoom fan lañ bëgg a dem lan moo leen boole da koy xam lan mooy seen doono da koy xam lan mooy njariñul réew mi da koy xam ba du ko yàq lan intérêt réew mi ci lan la nekk moom da koy xam ba di ko défendre di ko yàq du ko yàq am na réew yoo xam boo fa demoon tey ñëpp mànkoo nañ ci bu lépp looy def ba laal njariñul réew mi moom waa réew ma bi an ñëw ñëwul ko dal ci kaw ndax dañoo gëm ne laal nga loo xam mooy njariñul réew mi loolu nag dañ koy def ci nit waaye tam dañuy def ci moom mën a fexe ba dund ak mbooloo mi te du seey ci biir mbooloo mi mooy ne man ci doomi réew mi ci laa bokk waaye nag du ma seey ci biir doomi réew mooy danaa am sama gis-gis am sama xalaat su wax ko jotee ma ko waaye dinaa ko wax ci façon boo xam ne nii yoon dana ma ko may kon boobu mënta ñàkk moom tam kon sart yooyu mënta ñàkk état de droit mënta ñàkk système démocratique mënta ñàkk waaye nit ñu dafa seeni xel bañ am yëg-yëg bu mënta ñàkk pour ngir ñu mën a waxtaane citoyenneté ci am réew beneen bi ci mënta ñàkk dem mooy soxla yi nga xam ne nii nit ñi dañ koy am état ba di taxaw ci fajal nit ñi soxla yooyu moo tax na soxla yu yu fondamental yoo xam nit yëg-yëg xam nit daf koy soxla balaa ñu mën a waxtaanee cim réew réew ma état ba day taxaw temm ci fajal nit ñi seen soxla yooyu nga xam ne nii moom la war soxla yi mën naa limu nag mën naa bari loolu am na ci yoo xam ne nii ay ay ay ay ay soxla biologique la maanaam lekk ak naan ak yu mel noonu soxla ci sécurité soxla bi nga am ci confort soxla bi nga am ci sa jëmmi bopp yooyu yëpp réew mi def cee war a taxaw moo tax am na benn borom xam boo xam ne ni da koo tënkoon def ko la ñuy wax forme pyramide ñu tuddee ko pyramide Maslow maanaam daf ne léegi nii soxla yi nii la demee ci suuf ci misaal ñu ne lekk ak naa nag yu mel noonu mooy ne ci suuf mooy soxla yu njëkk sécurité topp ci maanaam confort topp ci yeneen topp ci noonu la koy toppee ba ci njobaxtan la nga gis fa nit ki yëg moom ñu jox ko cëram en tant que doomu soxla yooyu noonu mu toftaloon nag soxla boo faj ba mu fajtalu beneen dafay judd fi mu nekk nii nit ñi am na fa bu ñu fa tolloo lekk ak naan dong lañ soxla lañ tal leneen loo leen lijjanti lu lekk ak naan yëguñ ko waaye fi ni bis boo dee ba rek la lekk yeeg naan gi ba mu lépp jag da nga daal gis ñu commencé waxtaani mbirum sécurité war nañu am sécurité war nañu am kaaraangeen nañu sàmm ak yu mel noonu loolu bu lijjanti ko gis ñu jàll kon looy soxla boo faj beneen soxla day ñëw di taxaw bañ àgg ca ñobaxtan kon nag balaa ñoo mën waxtaani citoyenneté ci réew nag day fekk réew ma taxaw temm ci soxla yooyu doomi réew mi am mu koy fajtal ndax su fekkente ne fajtalu ko maanaam day mel ne citoyenneté bu doon dara dañaan day datu datu maanaam day lekk day lekku ba ba jeex buy lekk ba jeex nag yaa ngi koy gisee ci nit ñi dañuy dem ba rocc ko maanaam nit ñi doomi réew mi dañuy dem ba rocc ci warteef yi ñu gàllan seen loos ñu rocc ko ci dootuñu ko nangoo def ci misaal tey su fekkee da ngaa ci réew te nga gis ne réew mi yow yi ngay soxlawoo moom daanaka yitteelu ko taxawu ci jéemu cee fajtal lenn nit ki man naa dem ba ne de sama warteef yi ma waroon te mooy impôt bi ma waroon a fay ci alal ji ma yàlla jox ma war cee te ñun ñëpp mu war ñu te ñu war koo fay gis ñu commencé ne man daal comme réew mi gars yi defaluñu ma dara man tam impôt dootu ma ko fay ñu bari da ngay gis boo ko dajal ma ko dañ koy lekk donc nangam ak nangam ñu bari tax ñu baree bari daw dootuñu nangoo fay impôt nin ko war a fay loolu la koy waral mooy dañoo gis ne taxaw gi leen réew ma waroon taxaw taxawu leen man nañ koo feeñal tam ci ñàkk a bokk ci lay doxal réew ma ñu génne seen loxo ci misaal tey bu élection amoon tey warteef la ci citoyen bu mën doon doomu réew bu ku nekk bu fekkente ne àgg nga fi nga war a wotee warteef la ci yow nga jël sa carte électeur dem wote loolu warteef la ku ko defu tam defoo sa warteef bàyyi nga benn see warteef en tant que citoyen waaye léeg-léeg gis nit ñi am na foo bu fa état bi tolloo ñu yëg ni ñoom état bi daanaka defalu leen lu am solo élection day jot kenn du dem taux de participation bu faible ngay gis am na réew mu ñu jege lool moo xam ci Afrique gi la bokk ñaari weer ci gannaaw def nañu élection yoo xam ne nii taux de participation 11 pour cent la maanaam téeméer yoo jël fukk ak benn dong ñoo ci dem wote ndax ñoom dañoo toog ba yëg ni ñaal gars yi fi nekk daal di doxal réew mi daal wax dëgg yàlla ñoom seen bopp fi nekkal kon jërut nit ñuy déplacé wu naan ñoo ngi wote yu mel noonu kon ñàkk a satisfaire bëgg-bëgg nit ñi soxlay nit ñi dana jur yu mel noonu naa dem sax ba nit ki dem wuti feneen nag génn réew ma bàyyee la ko dem wuti beneen dem ci beneen réew wala sax mu nekk ci biir réew mi féttéeru wala boog fépp ci kaw réew mi dootu nangoo tënku ci sàtt réew mi mën naa ci biirum réew bu fekkente ne dañoo dem ba gis ci ay groupe yu ndaw ndawaan ci biir réew mi ngir mën a laaj suñu àq ak suñu yelleef loolu boo demee yenn barab yi nga xam dañ naan ay jihadiste dafa nekk yu mel noonu bokk nañu di ko indi lu mel noonu mooy ay nit ñoo dañoo gëm ne ñoom dañ leen a marginaliser ci réew mi joxuñ leen seen ci joxuñ seen ak seen lépp ñu dem ba yàgg ñu créé ay groupe yu ndondawaan ci biir fas yéene jàmmarloog état bi nga xam mooy état principal bi fi nekk loolu lépp lu koy waral mooy maanaam ñàkk a toppatoo bëgg-bëgg nit ñi kon bëgg-bëgg nit ñi réew bu nekk da nga cee war a taxaw ba nit ñi mën a dund seen citoyenneté nañ ko war a dund am lu am solo nag loo xam dañuy feeñ foofu léeg-léegi foofu nit ñi dañuy juum maanaam ñi ngànkum réew mën nañoo juum ci yan soxla nit soxla woo fi ne soxla ni ma ko waxoon léegi day yéeg nit ñi dañuy weesu yenn soxla yi yow nag boo mënta natt soxla yi nit ñi mën naa am foo jàpp ne fa la nit ñi toll nga nekk ci di ci sonn jàpp mooy soxla nit ñi fekk nit ñi weesu nañ ko bu yàgg mën ngaa jàpp nit ñi seen soxla mooy lekk ak naan nga topp ca di wàññee ko yokk ko subventionné ko def mel noonu jàpp ne boo ko réglé mbir mi da fekk ne nit ñoom weesu nañ lekk ak naan donte mëduluñ ko sax waaye ñoom seen soxla weesu na lekk ak naan nag léegi weesu nañ dañ ko dépassé bu yàgg-yàgg bu ko defee boo ci nekkee di ci sonn da ngay sonn sa coono du la jural dara réew wala bokk dafa am réew yu bari dañuy àgg ci nit ñi waxatuñu ay lekk ak naan sécurité yu mel noonu waaye la ñuy waxtaane mooy ñoom ñu jox leen seen cër en tant que ay doomu ci biir réew mi mooy ñu ubbil leen bunt ñuy mën a wax seen kàddu ci biir doxal réew mi ñuy mën a dugal seen xalaat ci doxal réew mi kuñ jënk réew mi te nga def ay lajj lajj ñu mën a jàmmal ak yoneel def nga lajj lajj te dara du leen ci fekk nit ñi foofu lañ toll waaye soxla yu bare bari ñu jàpp ne fi ne ci lañ toll foofu nit ñi weesu nañ ba yàgg-yàgg bu ko defee léegi da ngay nekk nag ca loolu di ko jéem fekk na nit ñi weesu nañ ko kon fi mu ne boo doon xool yittee nit ñi yu baree bari ci àddina bi réew yu baree bari boo fa demoon nit ña la ñuy kaas mooy dañ ñoo xañ suñu àq ak suñu yelleef ñu wax suñu xalaat ci réew mi loolu yi moo indi jaxasoo ci réew yu baree bari te fekk ne sax mën naa am ña yor réew ma ñu ngay sonn ci yeneen domaine jàpp ne mooy soxla nit ñi bu ñu ko fajtalee yëf yi dana fajtal kon yooyu ñeent mbir ngi yoo xam ne nii pour ñu mën waxtaane citoyenneté ci réew il faut que mu feeñ mooy état de droit mënta ñàkk mënta ñàkk itam démocratie am fa di dox mën ta ñàkk itam maanaam nit ñi seen xel ñu defar ko ba mu nekk ci ñu am mentalité yu baax waaye itam soxlay doomi réew mi nag ñu cay taxaw yooyu bu dajaloo nag buñ ca taxawee boobaa nag dañ mën a waxtaan ak ak yelleef yu ab doomi réew di am ci réew loolu mooy indi ñu wax xool nag yan ak ak yan yelleef moo war doomi réew mu mënti doon suñuy waxtaanee citoyenneté système ay système maanaam système ay droit ak i ak i yoo xam ne nii dañ koo xam yooyu nag bu fekkente ne nit ki àq ak yelleef yi nga am yow en tant que doomi réew mi loolu mooy warteef bi war état mu dox ca àq ak yelleef yi nga xam ne réew da koo am ci doomi réewam loolu mooy warteef bi war citoyen bi mu koy dox day mel ni dañ koy maanaam kon li ñuy tuddee àq ak ci nit mooy warteefu état li ñuy tuddee àq ak yelleefu état mooy warteefu nit ki doomi réew mi moo tax àq yi réew mi am suñu ñun mooy warteef yi ñu am ci mooy suñuy warteef ñun àq yi ñu am ci état bi mooy warteefu état kon ku nekk ameel nga sa morom àq ak yelleef ku nekk amel nga sa morom ay warteef bu dee warteef àq yi nga xam ne ni réew mu nekk am nga ko ci say citoyen say doomi réew am na yuñ ci ñu doon léegi mooy ñu jox la cër réew mu nekk dangaa am warteef la sa doomi réew ma ñu jox la cër bi ñu la war a jox te mooy ñu ñëpp dañoo war a gëm ne amul genn kàttan gu féete kaw kàttanu réew mi wala boog amul kenn ku féete kaw réew mi ci wàllu daraja souveraineté bi ëpp absolu bi nga xam moo féete kaw lépp mooy souveraineté étatique mooy état moo ko am kon moom moo féete kaw ñëpp moo yilif ñëpp itam nag mbooloo mu mënti doon tam nag dangay duggaat ci biir mbooloo mi nga xam ne nii réew moo ko yéex moo ko moo ko moo ko yilif réew mi nag da am devise ci misaal te ñun ñu ne suñ Sénégal benn benn xeet benn jubluwaay benn pas-pas yooyu dañ ko war a respec gëm ko di ci dox suñu drapeau réew couleur yi war nañ koo xam ni mu tëdd war nañ ko xam lépp lu koy gàkkal lépp lu koy suufeel tam waruñu kon war nañ koo sàmm di ko sàmm saa yi ñuy wax hymne national réew bàkk réew bu ñu koy yëkkati di ko bàkk ñun ñëpp war nañoo taxaw war koo jox cër kenn warate yëngatu loolu nag ñu bare bari ñun ñu ko bàyyi xel mën ngaa romb ñi ñi ñuy bàkk réew mi yëkk yëkkati bàkk réew mi nga gis nit ñuy dox seen soxla ñenn ñi di waxtaan ñenn def te loolu warteef la ci réew mu nekk citoyen bu nekk bu ñu yëkkati bàkk réew mi dangaa war a taxaw ne tem waratoo yëngatu ba bàkk yu daanu loolu daf laa war institution yi nga xam ñoo ngànk réew mi dañ leen war a respecté moo xam yu politique li moo xam yu yi àtte la moo xam yeneen yi la bu manti doon daal yi yoonal yi tëral yoon yi bu ci nekk war nañ koo jox ak yi ñu war jox moo tax léeg-léeg danga gis nit ku nekk ci barab du jëm mi nit ka ngay respecté waaye barab ba mu nekk moom ngay respecté parce que institution nekkatul nit léegi ab institution la boo xam ne ne état moom lay jëmmal cër boobee moom nga jox kon cër bi nga koy jox joxoo ko ko moom waaye état bi nga koy jox kon yooyu warteef la yoo xam ne citoyen bu nekk doomi réew mu nekk war naa xam ne amee na comme réewam war ko ko sàmmal naka doon nag alal ji nga xam moom ñëpp ko bokk loolu defe leer nañu la waaye itam bu ñu attaqué réew mi nga dem défendre ko loolu ñun ñëpp la war tey beneen réew bu jógoon feneen attaqué réew mi dal ci kawam xëy na militaire ñooy njëkk a dem waaye am na wax fa àggee képp toll ci man yor ngànnaay wala nga wala nga mën a wala nga mën rek sa warteef la nga dem ci front bi dem défendre réew mi loolu tam la boo ñun ameel nañ ko sunum àq la juñ ci réew am ci ñun waaye itam nga nangoo défendre njariñu réew mi intérêt réew mi yow lépp looy dox ak lépp looy wax sa warteef la nga sàmmante ci ak la cee njariñu réew mi maanaam intérêt réew mi fu ñu ko tuddee yow moom nga war di défendre défendre gi ñu défendre itam ba tey àq la yoo xam ne nii amee nañ kon réew mi am na ay warteef yu ñu ci war suñ liggéey ak réew mi ku nekk nag war koo xam noonu ñu amee ay warteef yi ñu war suñu digg réew mi tam nag noonu la état bi amee warteef yi ko war suñu digg ñun te loolu mooy suñu àq ak suñu yelleef yooyu nag am na ñoo ay droit civil maanaam droit yoo xam ne ci wàllu dundin mi lay nekk lu mel ne sa sañ-sañ bi nga am ci sa bopp loolu état bi daf la war a garantir sa jëmmi bopp bi sañ-sañ bi nga am ci soppandiku ci ni nga bëgg a soppandiku nga ko sa bopp loolu ku nekk dañ la ko war a bàyyeel ndax yàlla moo ñu bindee noonu moo ñaare ñu wax sa xalaat am xalaat di ko wax loolu réew mi daf ko war a garantir ñëpp ndax suñu àqal ak suñu yelleef te moo ñu ko war a sàmmal sañ-sañu pas-pas man lii laa bëgg gëm kii dafa bëgg nekk jullit kii dafa bëgg nekk leneen kii dafa bëgg ku nekk la nga jàpp ne moom nga moo la doy ci pas-pas am nga sañ-sañu gëm ko te yoonu kenn du ci nekk te état bi dafa la ko war a sàmmal sa àq ci moom nga xam ne lii yaa ko moom ci misaal bu dee kër ñu ne sa kër la bu dee tool ñu ne sa tool la defal la titre nga am ko moom ko aqi am ak moo moomeel ci réew mi itam suñu àq la te réew mi def ñu ko war a sàmmal warteef la ci moom àq la ci ku nekk am nga ko ci réew mi mu sàmmal la bu ñu jëflante ak yow jëflante jëflante ku tegu ci maanu maanaam bu ñu xool fa bokk bu ñu xool li ngay na nga mel bu ñu xool sa diine bu ñu xool saw làkk waaye nañu xool ne doomu réew mi nga ñu jëflante ak yow ci maandute gi nga xam ne ni moom la réew mi tëra ñu war caa jëflante ak ñoom yooyu ne mooy droit civil yooyu àq yelleef yi nga xam ne ñoom ci wàllu dellu ci wàllu googu yooyu maanaam ñi yor wàllu atteeg yu mel noonu ñoom ñoo ñu ko war a sàmmal bu ñu ko jàlgatee ñoom ñoo war a taxaw lijjanti lu mel noonu am na ay droit politique yoo xam ne nii itam dañu ko war a sàmmal suñu àq la àq di ñu am ci bokk ci liy doxal réew mi waxoon nañ ko léegi ay yoonu yoon loolu lu mënta ñàkk lañu ñu garanteel ñu ko te mooy ku nekk am nga àq ci falu am nga àq ci ñu fal la am nga àq ci dem fale ji loolu am nga ci sañ-sañ bu fekkente ne nag am na sart yi yu koy tënk tuuti. kon droit yooyu itam état bi daf ñu ko war a sàmmal waruñ koo xañ kenn ci lu dul loo xam ne nii yoon moo la ko xañ bokk gi ñuy bokk ci li doxal réew mi nag réew mi nekk ak na mu koy doxee am na ñoo xam ne nii maanaam dañ koy jaarale ci seen fal ay nit ñu wuutu leen di leen àggale seen i xel ak seen xalaat te a àgg lu mel ne ñun ni ñuy doxale nga xam ne ñoom parlement parlement bi député yi ñu fal leen ñoom ñoo ñu fay toogal bu ko def bu amee xalaat yow sa député moo lay jàllale xalaat yu mel noonu ci biir réew am na ñoo xam démocratie direct la ñuy def nga xam da ngay dugal sa kàddu directement ci ni doxal réew mi loolu am na système yoo xam ne ni am na ci biir àdduna bi am dañu àq yoo xam ne ni ay droits sociaux la yoo xam ne ni moom tam nit ñi ci maanaam réew mi dañ ko am te réew mi war leen koo sàmmal lu mel ne ku nekk am nga àq ci ñu jàngal nga xam li nga war a xam njàng droit la boo xam si doyen bi nekk am nga ko réew mi war la ko garantel surtout ñu wax éducation de base nga xam moo tàmbali CI ba troisième loolu réew moo la ko war a sàmmal ku nekk am nga ci ku nekk am nga àq ci boo feebaree faju wutal la barab bi fajukaay yoo xam boo feebaree dem fa ñu faj la loolu réew mu nekk war warteef la ci réew ma mu sàmmal ko waa réew li ñu wax féexlu barab bi féexlu kaay maam fi ngay mën a féexale say sa xol boo liggéeyee ba nopp wala boo defee la ngay def ba nopp barab yooyu war a mën di sa bopp di féexal sam xel loolu itam àq la joo xam ne citoyen dañu ko am te réew mu nekk war koo war caa dox leen ko sàmmal kon yooyu ko tënkoon ñu mën nañu àq yooyu moom ñëpp a ko am loolu nag réew yi ñuy waxtaane yëpp ñoo ko bokk léegi nag bu ñu ñëwee nag Sénégal ni ñu ko waxtaanee ci biir adduna bi lii daanaka adduna bi ko bokk waaye bu ñu dellee sàtt réewum Sénégal muy bi nga xam ne ni moo tënk Sénégal dañ cay gisaat àq yi ak yelleef yi ak warteef yëpp mu tënkaat ko fa ne nii la war a tëdd moo tax dañ ci jukki yenn ngir ñu mën koo bàyyi xel ci bu ñu delloo ci sàttum réewum Sénégal ñu bàyyi xel nag ci ne sàtt réew mi maanaam loi la bu matale bu bu tënk la dafa am lu ñuy wax loi d'application moom mooy leeral nag lu nekk nañ ko war a doxale noonu lañ koy doxale waaye daal am na yuñ ci tënk yu baree bari yoo xam ne nii mën nañ ciy tudd yennat bokk na ci boo demee ci tànk article set bi maanaam ci bànqaas bi juróom-ñaareel dañ fay wax ne jëmm doomu aadama dañ ko sacré maanaam dañ koy sellal kenn amul sañ-sañu laal ko sa jëmm ji kenn amul sañ-sañu forcé la dugg sa biir di jëfandikoo ci yow ko neexee dañ la ko war a sàmmal ñu ne foofu nag état moo am obligation ak wartéef ci respecté jëmmi doomu aadama ji waaye itam sàmm ko aar ko ba kenn du ko jalgati mooy kenn amul sañ-sañu dal ci sa kaw jëfandikoo violence jël sa kaw jëfandikoo si jëmm la neex loolu sa àq la sa jeelef joo xam ne nii réew mi daf la ko war a sàmmal war ñoo bàyyi kenn mu cay doxe na ko neex mu dellu waxaat ne kum doon ci ñun am nga àq ci dund sa dund gi sa àq la te réew mi moo la ko war a sàmmal lépp lu koy faagaagal réew moo ci war a taxaw bañ sàmmal la am nga àq ci jëfandikoo say sañ sa liberté am nga àq ci am sécurité kaaraange gu mat sëkk am nga àq ci ni nga bëgg a tëgge sa personnalité ak ni nga bëgg mu mel ne am nga àq ak yelleef ci sañ-sañ ci tëgge ko mel noonu mu mel waaye am nañoo intégrité corporelle maanaam mooy sa jëmm ni mate nii kenn waru koo wàññi kenn amul droit di ko wàññi maanaam dagg ci cër wala damm ci cër wala yàq ci cër ci lu dul ñu teg ko ci ay lu ñu yoonal kon ñu ne sa intégré sa intégrité corporelle physique maanaam loolu état bi daf la ko war a sàmmal kon yooyu ak la yoo xam ne nii état bi moo ñu ko war a sàmmal ay droit la yu ñu am sunum réew war ñu ko sàmmal te bind ko ci suñu sartum réew boo demee ci article 8 da nga gis ne Sénégal réewum Sénégal mooy garanteel mbooleem doomi réewam seeni liberté individuelle seeni sañ-sañ ci seen bopp yu fondamental yi mënta ñàkk yoo xam ne dañu koy judduwaale seeni droit économique moo leen koy garanteel seeni droit sociaux tam moo leen koy garanteel mu ne nag mën nañ jaat yu mel nii am nañu ay liberté civile ak politique liberté d'opinion moo ne may nga am sañ-sañ ci gis-gis loolu mu ngi ne faa ngi ci biir sàrt réew mi ñu ne réew mi moo ko war a sàmmal ñëpp ku nekk am nga sañ-sañ ci am sa gis-gis ak na nga ko gisee sa sañ-sañ ci wax la nga gis sa xalaat réew mi daf la ko war a sàmmal sa sañ-sañ ci wàllu jël xabaar wala tas ko dañ la ko war a sàmmal sa sañ-sañ ci créer mbooloo ay association wala yu mel noonu mbooloo mu ab groupe dañ la ko war a sàmmal sa sañ-sañ ci dajaloo di waxtaane mbir mu ñu yitteel ñun dan nu ko war a sàmmal suñuy sañ-sañ ci déplacé ci biir réew mi dan nu ko war a sàmmal suñuy sañ-sañ ci génn wane suñu naqar ndax am nañu naqar la ñu naqar ñu war koo wane ci façon bu jàmm bu tegu ci jàmm yooyu ay liberté la yooyu yëpp nag état bi la war mu sàmmal ko ñun ñi en tant que ay citoyen sañ-sañ suñu mbatiit suñu culture suñu aada ak cosaan ku nekk am nga sañ-sañ say aada ak say cosaan nga di ko dund état bi daf la caa war a aar ba ku nekk la nga xam mooy sa démb ak sa bërki démb sa ndono nga di ko sàmm di ko dund am nga sañ-sañ suñuy sañ-sañ ci wàllu diine état bi daf ñu ko war a sàmmal kenn warut a forcer kenn ci diine ku nekk war dañ laa bàyyi la nga la la doy nga gëm waaye nag bul yàqal keneen suñuy sañ-sañ wàllu philosophique maanaam mooy xalaat xel xalaat pas-pas biñ ci am ak nañuy xalaatee ak nañuy gisee loolu dañu ko war a sàmmal suñuy sañ-sañ ci ñun dañuy liggéey ci barab gis nañ ne war nañoo créer mbooloo moo xam ne nii moo ñuy sàmmal suñu àq suñu yelef ci barab bu ñuy liggéey ñu ko di syndicat liberté syndicale loolu état bi daf ñu ko war a garantir liggéeykat yépp am nañ sañ-sañ ci créer ko te état bi nag war leen ko aaral kon liberté yooyu nga gis yooyu yépp suñu suñuy sañ-sañ la yoo xam ne nii sunum réew moo ñu ko war a sàmmal te loolu lañu ko bindi suñu sart réew mu leer nañ droit yi ma waxoon léegi itam loolu lañu ko bindee droit à l'éducation maanaam am nga àq wala boog euh, yoon la nga amum njàng mi nga war a ñu jaarale la fi ñu war a jaarale xale bu ci toll ci jàng ñu jàngal la sa àq ci mën liir ak mën a bind loolu réew mu nekk yaa ñu ko ameel suñu réew dañu ko ameel jàngal nit ñi bañ mën a liir mën a bind loolu warteef la ci ñoom seen warteef la suñu àq la ñu war ñu ko ñoom ñu gàddul ñu ko ñoom suñu àq ci amul moomeel luñ moom lu luñ jilif moom ko suñu àq ci am liggéey bu baax bu ñuy mën suturloo suñu droit la réew mu war ñu ko sàmmal suñu droit ci bu feebaree faju waxoon naa ko léegi suñ droit ci am alam environnement bu baax bu set ci boo xam ne lenn luy lore du ca nekk loolu dañu ko war a sàmmal sunu war sunu àq ci am information boo xam ne nii day leer nañ jóge ci barab yu baree bari loolu tam dañu ko war a sàmmal kon yooyu ay droit la yoo xam ne moom tam ba tey mi ngi ñu bind ne surveillant bu nekk wala doomu réew mu nekk ci réewum Sénégal réewum Sénégal warteef la ci moom mu sàmmal la yu mel noonu li ma ci yokk mooy li ma waxoon léegi ne yooyu ma tudd nag yu ci yu ci dafa am ay loi d'application moom ñoo xam ñoo ko moo xam moo koy organiser lu ci nekk boo ko bëggee jëfandikoo am na yoon ak fu ñu koy tënk ak yi nga xam ne ni mooy tax du de ndax ku nekk xam ne liberté tam bu ñu ko tënkul ci benn lu koy téye lu koy tënk day mujj déborder bu baa dootu nekk liberté waaye anarchie lay doon wala boog fawda moom lay jur demee ci article 10 ci charte réewum Sénégal day wax ne ku nekk ñun am nga àq ak yelleef ci wax ak tasaare ci sañ-sañ bu ma sëkk say xalaat am nga sañ-sañ àq ak yelleef ci ak ci tasaare say xalaat ak ci sañ-sañ mat sëkk nga tasaare ko yaa xam nag noo koy tasaare benn da ngay wax ñuy dégg walla nga di ko bind ñu koy liir wala nga def ci image maanaam foto wala yu mel ñu koy gis wala boog sax nga génn di dox doxu jàmm ngir man a wane say xalaat loolu lépp dañ la koy eh, maanaam sa àq ak yelleef yoo xam ne yooyu moo la ko war sàmmal loolu lépp nag li ma waxoon léegi daf ci dellusiwaat nag nag loolu tam boo koy doxal nag yow tam bul gàllankoor droit ak ñeneen bul yëngal itam li ñuy wax daluk daluk nit ñi ordre public maanaam bu ko bu ko jalgati loolu boo ko defee rek day daal kii bu ñëwee ci article 12 ba tey ci charte réewum Sénégal dañ naan doomi réewum Sénégal ñëpp am nañ droit ci ak sañ bu ma sëkk ci former ay association ay mbooloo ay groupement économique am nañ sañ-sañ wala groupement culturel maanaam ñoo bokk suñuy aada ak suñuy cosaan ñu def mel ni mbooloo ngir ko sàmm wala yu mel noonu yooyu yëpp dañ ci am sañ-sañ ci di ko def état bi tam war ñu ko aaral waaye nag fekk tam ñu tënku ci sart yi nga xam ne nii moom tam mooy wax tax loola mën a dem boo demee ci article 14 ba tey ci ak ci sart réewum Sénégal day wax ne mbooleem ñi dëkk senegal di doomi réew mi am nañ sañ-sañu ci déplacé ci biir réew mi nam leen neexe am nañ sañ-sañu tam dëkk fu leen neex ci biir réew mi fi mu nekk nii en tant que citoyen sénégalais am nga sañ-sañ fu la neex ci biir réew mi nga dem fa fu la neex ci biir réew mi nga dem dëkk fa bu la neexee sax nga tànn dem dëkk ci bitim réew kon loolu tam ba tey suñu àq ak suñu yelleef la yoo xam ne nii réew mi daf ñu ko war a sàmmal mu des nag ba tey li ma waxoon léegi rek mooy nga tëggu nag ci loi ak règlement yi nga xam ne nii mooy leeral yu mel noonu boo demee ci article 15 day wax ci moomeel mu ne sañ àq ci moom état daf ko war a garanteel mboolem doomi réew mi moo tax li nga moom muy sa kër si foncier bi nga moom muy sa kër wala sa li nga xam ne yaa ko moom kenn amul sañ-sañu teg ci loxo lu dul ne dañoo dem ba gis ne kat njariñul mbooloo mépp mépp moo daje ci ne lii dañ koo war a jël ci yow ndax mbooloo mi daf ko soxla ñu ne boobaa nag bu ko mbooloo mi soxlaa tam te ñu war koo jël ci yow tam te ñu constaté gis ne lu wér la balaañ koo jël ci yow war nañu laa ndàmp ndàmpaay lu ko ñu ne tam ci réewum senegal tam sant loolu tënk na ne góor ñi ak jigéen ñi ñoo ak ci am suuf suuf nekkatul rek ne góor lañ koy jox mooy mooy moo ciy liggéey déet léegi jigéen ji bëgg a liggéey am na sañ ñu jox ko suuf góor gi bëgg a liggéey am na sañ-sañ jox ko suuf si nga xam ni ñëpp ñoo ko bokk ñu jox la ci nga cay liggéey na fekk nag nga ko ci luwaay ba tey loolu kon yooyu benn la ci àq yi nga xam ne nii mën na noo jàpp ne réewum Sénégal yaxal saxal na ko ci biir sàtt réew mi kon yooyu lu leer naa ñu loo xam ne defe naa ne buñ ci delloo bu ko ñëpp xamee te xamee ko noonu te xam ne nag ak joo gis ak yelleef joo gis nag dafa am nuñ ko limité am nuñ ko organisé ndax dañuy bañ mbir mi dem dugg ci ay nit ñi di ko foye mu nekk anarchie boo xam ne nii day indi débordement ci biirum réew moo tax ku ko bëgg a tam nag da ngay gëstu ba xam liberté bii ñu ma may yan ak yan yan lañ ci gàll yan yan lañ ci tënk naka naka naka laa ko war a mën a jëfandikoo te du ma yàqal ñeneen ñi kon foofu la gisee ne kon ak waxtaane citoyenneté lu am solo la waaye ñu bàyyi ci xel nag citoyenneté moom nit daf koy fàggu maanaam da ngay judd ba noppi door ko am ndax ak ak yelleef yoo xam dañu la koy jox patriotisme nag wala civisme boobu nga xam nag moom la nit di judduwaale nag moom moo ëpp solo lépp moom moo tax moom ci la war a gën a liggéey te li ñu koy xamee nag ci façon yu bari nag fi ne boo demoon cim réew tey ñi nga xam dañoo dem cim réew jël fa nationalité léegi doomi réew ma lañ mën naa am nañ droit yooyu am na àq yépp ña ngi koy am di ko am léegi la ñuy am am nationalité réew mi da ngay gis ne ñooña seen xel fu mu toll dee ne seen réewum cosaan parce que lu yàlla def ci ñun la maanaam ndax lu yàlla def ci ñun la moo ñaare ñu ko mën ngaa dem ci réew am fa nationalité am fa yu baree bari yëpp nga am ko waaye foo toll sam xel day ne ci sam ne ci sam réew ñu bari bu ñu ci réew am fa dem fa ba am fa doole am alal ju baree bari lu ba da ngay gis ñu jël alal jooju di ko delloo seen cosaan di ko delloo seen réew seen réewum cosaan ndax yëg-yëg ba moo dul dee ci seen biir te it ñaare bu réew mañ leen jox nationalité bu nekkee ci ay jafe-jafe li yëpp mën nañ ko faa bàyyi dellu seenum réew nga gis tam li ñu xalaat seenum réew la ñuy xalaat réew mi nga xam dafa leen adopté boo demee cim ña nga xam ñooy déem réew mu cosaanoo fa xam jëluñ nationalité ñaare boo fa jëlee nationalité gisin bi ñuy am ci yow dañuy aw am sikki sàkk ci yow mu ñëw ci réew mu jël fi jël fi nationalité waaye bokkul ci waa réew mi dañu am beneen maanaam ñu jël nationalité cim réew nañu war a jaxasoo waa réew mu dëgg-dëgg duñu jaxasoo ak noonu ña fa cosaanoo ndax dañu am yëg-yëg bu ñuy am ci ñoom noonu moo tax yëg-yëg boobu moom lañu war a liggéey kon patriotisme wala civisme boobu képp kuy yar walla ngay kilifa ci barab wala ngay kuy wax ñu lay déglu yëg-yëg boobu ñu yàlla mooñaale moom la ñu war a fexe ba di ko màggal ci nit ñi ndax mooy melokaan wi ñu soxla rawat na nag xale yi daw ji ñu fexe bañ màgge ko fexe bam mu ci xelum ñëpp ñu am yëg-yëg boobu ñu màgg màggaale fi mu ne na réew moo xam boo fa demoon tey bu tuuti bu toll ci fukki at fukki at ak nangam da ngay toog di waxam mu fii àjjana la fii moom àjjana la yëg-yëg def ci ñoom xam ne ñoo gëm ne ñoom seen réew fu dul fu dul moo dax ci àddina maanaam seen réew moo dax ci àddina fu dul moom réew maa gën ci ñoom yëg-yëg boobu la ñu tuuti di ko màggaale am na réew moo xam boo fa demoon tey xale bu tuuti moo lay wax lu mel noonu am na réew moo xam boo fa demoon xale bu tuuti ngay waxtaan mun la fii mooy ndeyi àdduna àdduna bépp fii mooy seen ndey nga gis ne moom yëg-yëg boobu dañu koy def ci am na loo xam boobu demoon tey xale yi tuuti ngay gis ñu jàpp ne àddina bépp ñoo leen war a yilif ndax gëm nañu ne yéen yéen a féete ñu kaw ñëpp beneen national beneen nation bu mën doon ci àddina bi yéen yéen a leen féete kaw loolu pas-pas la bu ñuy def ci nit ñu di ko màggaale loolu nag yar ak éducation ak defar gi ñu defar nit ki socialisation bi ci lañ ko war a dugal di ko def moo tax loolu ñëpp ci am responsabilité muy ñiy jàngale muy kilifa diine yi kilifa adduna bi kilifa aada yeeg cosaan ñiy lépp koo xam daal am nga kàddu yi wax ñu lay dégg wala nga am baat di wax ñu koy jëfee sa warteef la loolu nga di ko màggal ci biir xale yi te it ñu màggal seen bopp biir nag ne nag yëg-yëg boobu ñu def ci ñoom nag nañ bàyyi xel ne sunu borom moo ñu ko mooñaale mi ngi mel ne lekk ak naan rek lekk ak naan ñëpp dañ koy judduwaale waaye nooy lekk nooy naan moom dañ la koy jàngal bu la ko jàngalut mën ngaa lekk lekk wu ñaaw wala ngay naan naanin wu ñaaw naka noonu tam nag maanaam patriotisme boobu nga xam ne nii suñu borom daf ñu ko mooñaale yar bi mooy ñëw ngir defar ko ba nga man di ko doxe te doo yàqal keneen moo tax nañ gëm ne kon bëgg sam réew tekkiwul bañ keneen maanaam man daal sama patriotisme rëy na àgg na fu kawe tekkiwul ne damaa war a keneen ku dul waa sama waa réew tekkiwul loolu tekkiwul tam ne damay tëje sama biir rek keneen ku bokkul ci man du fi dugg léeg-léeg am na ñu extrême droite maanaam boo demee ci yenn réew yi tubaab bi am na ñuy extrême droite nga xam ne ñoom dañoo gëm ne ñoom ku bokkul ci réew ma rek bokkul ci léegi di leen bundu xataal di leen wax wax yu ñaaw di leen jëfandikoo ñoom façon boo xam ne ni loolu tekkiwul patriotisme tekkiwul loolu ndax da ngaa war a nangu ne man ni ma amam réew fonk ko am yëg-yëg boobu noonu la keneen amam réew fonk ko am yëg-yëg boobu kon xëy na ay njariñ ak yeneen moo ñu boole ñu dese ci barab boobu ñu gis nag ne yoon wi gën a gàtt nag ci jëmbat ruu googu wala boog yëg-yëg boobu jëmbat ko ci nit ñi surtout ci xale yi moo ñu jox leen royteef ñun mag ñi nañ joxe royteef ci seen bopp ku nekk ci ñun booy dox ak lépp loo mënti def rawat na nag kilifay diine yi rawat na kilifay politique yi ñoom war nañoo fexe ba lépp lu ñuy def lu mu tuuti tuuti nañ ci sàmmonteeg sart bi tënk réew mi buñ ko ci gisee muy liñ bind mu leer naññ nañ ci tënk bu fekkee gisuñ ko ñu bind ko mu leer naññ war nañoo inspiré wu ci sart nañ ko lañu bind ngir mën a doxal la ñuy doxal waaye ñoom kenn waru leen a may ñu jàggati sart réew kon képp kuy war nañoo joxe war nañoo jox royteef xale yi ñu jox leen royteef ci lu mel noonu nañ jox xale yi royteef ci war maal alal réew moom tey man kenn wërta nangu ñu jalgati alal réew mi dañ la ko dénk yow war nga ko sàmm ba mu ñoŋ ku ci war a am na ci am ci yoon moom ci war a amee waaye itam nag képp koo xam dañuy jël alal réew mi ñëw jox la ko te joxuñ la ko ci yoon bu ko jël ndax bu fekkente ni sa civisme sa patriotisme mi ngi dox dëgg-dëgg waroo ko jël ndax ma mas waxoon nañ ay jamono ne woon nañ la kii sàcc ak ki kii ñuy sàcc di ko jox daanaka sorewuñ sàcc ak ndey sàcc la ñu nit kon war na fexe ba képp koo xam ne nii kilifa nga ak koo mënti doon alal réew mi buñ ko la ko dénkee nga sàmm ko waaye itam buñ ko jëlee jox la ko yow te joxuñ la ko ci façon bi ñu ko war a joxe waroo koo jël su ni bëgg ngaa joxe royteef bu rafet bu rafet moo bu rafet ci xale yi war nañoo joxe royteef bu rafet tam ci wormaal ak sàmm alal ji nga xam ne nii suñuy moroomi doomi réew mi ñoo ko moom bañ koy jalgati bañ bañ di leen bañ leen ko yàqal mer nañ rek dem yàq wala yu mel noonu loolu tam war nañ cee joxe royteef ba xale yi xam ne nit ki li moom kenn waru koo laal te lu dul loo xam ne ni moom daf caa ànd war nañ la jox royteef ci tànn baat ak segg ak tànn baat yi ñuy jokkalante suñu biir bu ñuy discuter en tant que ay kilifa bu ñu toogee di wax wala ñuy discuter wala ñuy jokkalante ay kàddu baat yi ñuy jokkalante suñu biir war nañ ko segg tànn ko bu baax baax a baax ndax xale yi koy dégg muy jeexitan ci ñoom loolu war nañ ko bàyyi xel kon bu ñu ko dënk dañuy wax ne daal roy maanaam yar tey joxe roy téef mooy ni nu bëgg xale yi mel ko ëllëg ci warmaal réew mi sàmm réew mi nekk ay citoyen yu baax nañu fexe ba ñun mag ñi wala ba kilifa yi moo xam diine ak diine ak politique yëpp ak ñëpp ñoo xam ni ñu ngi lay wax ñu leen dégg ñu fexe ba mel noonu boo ko defee xale yi di ko gis bis bu ñu màggee ba ëllëgee danañu mel ne mel noonu waaye nag foofu la ñuy wàccee suñu kàddu am na ku ci mas wax lu siiw loo xam mën naa walaabal fii neewoon na kat boo demee ci kër fekk boroom kër gi mu teg ay dëndam ci digg kër gi di tëgg na mu ko neexee nee na boo xoolee gis waa kër ga di yëngal seeni loxo ak seeni tànk loolu moom bu mu la bett ñoo ngi sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu